Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel saa su ne à travers seen chaîne mag bi nga xamante ni mooy salaam Vision ñi ngi am mbégte tey li koy sabab itam mooy fi nga xam ne fii lañ ñëw tey ak ki nga xamante ni tam moom lañ seet si bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci wax dëgg yàlla yëngu-yëngu yi bi nga xam ne mi ngi ci waaye itam lenn itam ci li nga xamante ni mooy ndénkaan yoo xamante ni ay ndomba tànk la yoo xamante ni suñu borom dénk na ko ko à travers. réew mi waaye tamit doon kenn koo xamante ni tam wax dëgg yàlla jëwiñ la waaye suñu magum taalibe la ñu gën ko xam ci sëriñ Moustapha Mbaye moom lañ seet si moom tam buñ koy wax buñ ko doon présenté tey dañuy wax ni moom mooy coordinateur bu Benno Bokk Yaakaar bu département de Foundiougne waaye tam honorable au conseiller HCC waaye itam président directeur général entreprise bi nga xamante ni mooy entreprise Touba Daaru Salaam entrepreneuriat bi nga xam ne dafa yëngu ci wàllu entreprise ci wàllu li nga xamante ne mooy entre entreprise Touba Daaru Minam macha allah nga xamante ni wax dëgg yàlla entreprise bu mag bu mucc ayib tam nekk fii ci diwaanu Sodida moom lañ seet si tey bëgga a waxtaanee waat ak moom rek ni ñuy def rek xanaa mooy dañuy nuyoog moom waaye nuyoog tam mbokku internet yi nga xamante ni saa su ne ñi ngi teewlu jotaay yi nga xamante ni ñu ngi leen koy dégtal fii à travers li nga xamante ni mooy Salam Vision. suñ Moustapha ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar waaye ñu ngi lay dalal jàmm itam ci plateau bi nga xamante ni mooy plateau salaam Vision naan naan salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah mhm. ñu ngi lay delloo nuyoo Salam Vision mhm. te di nuyu adduna bi ñuy seetaan yëpp rawatina Sénégal di la corriger tuuti ci sa présentation bi mhm, parce que man comme ni nga ko waxee may nekk honorable au conseil mhm. nekk ordinateur Benno Bokk Yaakaar bu département Foundiougne waaye mhm. nekk président conseil départemental bu Foundiougne bu fekk ma nag ci suma service fii ma nekk mhm. nga xam ne may directeur général entreprise bi euh, entreprise baa ngi tudd entreprise Touba Darou Minam liggéey lay fay di dalal jàmm te di la ñaan mm, ñu dugg ci ci jàmm mm-hmm. comme ni sa site bi tudd. macha allah. Euh, génn ci alhamdulilah. alhamdulilah jërëjëf sëñ Moustapha macha allah nuyoo bi am na solo euh, jaajëfat bu baax a baax tam ci wax dëgg yàlla ni nga ñu dimbalee waatee ndax euh, li wolof di wax naan moom du teew ñuy nataal. ndax hmm. bëgg a présenté nit moom nit ki présenté boppam da koy gën a da koy gën a mucc ayib macha allah kon ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax hmm. xanaa rek bëggoon waxtaan ak yow fi ñu ko bëgg tàmbalee fi nit ñi di xaar waaye ñun fi ko bëgg a tàmbalee muy tey jii bu ñu doon waxtaan ak sëñ Moustapha Mbaye ci li nga xamante ni moom mooy entreprise bi nga xamante ni suñu borom teg na la ci bopp bi mooy entreprise Touba Darou Minam ci jamono naka naka naka naka la sëñ Moustapha di doxalee entreprise bi ci jamono fi mu toll ni yëngu-yëngu yeeg xidma yeeg ñàkk mm. liggéey bi nga xamante ni chaque jour ñu mm. ngi doon ay ay ay points yu yu yoo xam ne réew mi yëpp ñu ngi koy waxtaanee macha allah. waaw Moustapha Mbaye benn ndongo daara la. Mm-hmm. di taalibe murit mhm. taalibe sëñ Abdou Hakim macha allah mm, ku ko xam xam ne liggéey mooy bëgg-bëggam mhm. ba ñu demee ba yeewu ci àdduna rek mhm. dañ jàpp ne war nañu participer ci jamono ji ñu fekkee te jàpp naa ne participer ci sa jamono dëppoo wut nga liggéey amale ko ci sa njaboot. baax na lool nag. Mm-hmm. parce am na ñoo xamante ne tey duñ liggéey. Mm-hmm. du ñu defar seen njaboot dara. Mm-hmm. mais ñun dañoo opté. bokk ci ñi nga xam ne dañuy créer ay liggéey di ko dugal ci askan parce que entreprise bi ñu ngi ko créé deux mille mille neuf cent di def entreprise bâtiment mais di def yeneen opération yàlla ñu ciy dimbali ba tey mën nañu wax ne bu ñu xoolee li ñuy employé mhm. ci biir entreprise bi ak ñu nekk ci àll bi. Mhm. war na dem ci quatre vingt personnes. macha allah loolu nag participation la bu nga xamante ne. Mm-hmm. Euh, dañ ko def ci réew mi. Mm-hmm. te lu war la. ndax euh, bi ñu jógee di liggéey. Mm-hmm. dañu doon employé. kon nag bu ñu demee ba taxaw. dañu war a wut ay employé. donc euh, voilà. ci loolu daal ci lañu nekk. bëri na ay réalisation yu nga xamante ne ci Sénégal. bu ñu ko dindi woon. <laughs> Sénégal dana ko xam. dina ay lycée yu fi taxaw ak ay université ki yeneen affaire yu mel noonu mm-hmm. entreprise Touba Darou Minam mm-hmm. def na ci dara mm-hmm. am nañ tamit ay cadre yu nga xamante ne dañoo génn nekk ingénieur jaar fii ci entreprise bi ba tey ñu ngi yor seen entreprise boobu di di ko doxal jël nañ ay xale yu nga xam ne tamit biñ leen a jël ñu liggéey fii boobu xamaguñ dara te actuellement tey am nañ xam-xamu demal seen bopp du kenn du ñaar Mm-hmm. loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di ko ci gërëm ci sant suñu ñaari waajur yi nga xam ne mm-hmm. ñoo ñu yar ci liggéey mu doon lu am solo sëñ Moustapha comme ni nga ko waxee léegi rek wax dëgg yàlla. Mm-hmm. entreprise bo xam ne daanaka quatre-vingt-quinze ak léegi. daanaka defe <laughs> wax dëgg yàlla mi ngi bëgg a def ay fan. macha allah kon ñuy ñaan yàlla sama mu gën ko teg loxo. te gën a jëm kanam ni nga ko waxee ndax koo xam loo entreprise boo xam ne daanaka euh, mi ngi mi mi mi ngi mi ngi liggéey lool lu mat. quatre-vingts personnes mhm. juróom-ñetti fukki doomu aadama def moom yombul mhm. doonte nag fi mu ne nañ ko ñoo ngi ñaan mu gën a yokk fi mu ne lu kam mhm. waaye bu xoolee bu baax day mel ni tey jii fi euh, na kon tey jii ci ñi nga xamante ni yéen a ngi xeex chômage ci biir réew mi sans pour autant ngeen am benn ndimbal bu ngeen bu buñ leen dimbalee waaye ak seen i propre moyens yéen a ngi ci yéen a ngi ci xeex chômage waaw ñu lay ñu ngi ñu ngi ñu ngi nga wax mais boo xoolee li ma wax ci jël njëlbeen wax rek mooy mhm. suñu amee ñu ñu ci jàppale mhm. pour ñu développer ko mhm. dina baax lool parce que njëriñal Sénégal la waaye suñ ko ci amul di danañ dem suñu jom ndax dañ jàpp ne réew mi dañ ci bokk comme ni ci président de la république bokkee ni ci keneen bokkee ni ci keneen bokkee donc euh, lépp luñ fi def mhm. euh, lu ñu war la defuñ ko ci réewum jàmm mhm. c'est vrai que man jànguma nasaraan mhm. ndongo daara la euh, waaye maa ngi employé ay fii ci suma entreprise loolu nag doy na sant yàlla ngi sàkk nag euh, président de la république jàppale entreprise yi parce que toujours boo déggee ni ñi di coow xëyu ndaw yeeg manque d'emploi bi mhm. état mhm. mënul employé mhm. doomu réewum yar mais mën na créer ay conditions yu nga xamante ne conditions yooyu dina mën a am ay employé yu bëri te du ko wàññi dara parce que tey entreprise yi buñ leen jàppalee dooleel leen kattan bu ñu am mm-hmm. impôt am na ci wàll mais personnel bu ñu jël tey état leen waroon na jël bi ngeen di dugg si da ngeen fekk may def benn entretien mm-hmm. ak kenn ku ma war a jël mm-hmm. pour muy liggéey si entreprise te kooku état ko waroon na liggéeyloo parce que ñoo ko jàngaloo ba am ay diplôme mais ñaan nañ yàlla mu liggéey fii ba am fi dara te am na ñeneen ñu nga xamante ne aussi ñu ngi ñu ngi leen di fexe pour jàppale la mm-hmm. te tamit euh, ñu ngi créé yeneen société yu nga xamante ne mm-hmm. buñ ci nekkul cent pour cent it mm-hmm. am nañ ci doole ca conseil d'administration ba te ñooñu ñu ngi jël ay nit leen employé kon ñun euh, dañ fi nekk pour jàppale askan wi waaye jàppale président de la république ci liggéey <clears throat> mu doon lu am solo sëñ Moustapha wax nga ko léegi kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi profité waale ci biir bi. Hmm. di di di di ko nuyu son excellence. di hmm. lancer un appel moom itam comme ni nga ko waxee à travers entreprise yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal doon ay entreprise privée waaye buñ ko xoolee doonatul privé ndax koo xamante ne daanaka yamalewu ko ci boppam. Hmm. mi ngi ko ubbi ubbil ko askan wi kon doon na doon loolu ay entreprise publique lay doon kon ñu ñaan ko moom itamit euh, li nga xam ne suñu borom desel na desel na ko mu dese ko ci réew mi itam mu gëstu ñooñu tamit fi toll kenn ku ne lu la mën a taxawoo tamit mu néew mu bëri mu taxawoo la ko itam dana dana dana dana baax itam ci askan wi dana baax itam ci ci ci ci réew mi macha allah rabbi ba tey jii sëñ Moustapha su ma doon laaj ne la yan mooy coono yi nga xamante ni moo gën a métti ci biir seen liggéey yi ngeen di liggéeyee nga xam ne yéen a ngi jànkuwanteeg moom tey lan nga ma ciy ji. waaw métti bi moom li ci gën a métti rek mooy mhm. ñun état la ñuy liggéey mhm. état xam na ku ne xam na ni mu bindoo. di léegi di ngay liggéey ba liggéey pare mm-hmm. nga topp ci seen ginnaaw di daw. di daw moom coono boobu moom ci la ñu dëkk. Mm-hmm. yaakaar naa ne loolu mm-hmm. du lu nga xamante ne lu lu jàppale entreprise la bon condition yi pour nga am marché jafe na mais boo amee marché condition yi nga koy liggéey du lu yomb parce que dañ ne tegal ay contrôle yu aussi <coughs> contrat bi bi nga koy signé mhm. la ngay signé ak ni ñu koy doxalee du nekk benn parce que mhm. pratiquement tey boo gañee marché li nekk ci contrat bi mooy chaque mois mhm. dañ la war a defal décompte mensuellement nga mën a fay say entreprise mais danañ gagné marché liggéey pendant un an presque duñ jot benn décompte loolu nag lu métti la te dama nekk ci télévision di wax mais mhm. eh, bu fekkoon ne man ak yow rek ma cité ne la mhm. marsetel ak marsetel mhm. bon liggéey ça fait ma si jot métti la te mm, loolu mun la ko expliquer ñi nga xamante ne dañ la dañ lay surveiller ci liggéey bi parce que ñoom bu ñu ñëwee duñ xool oh, ndax fay nañ la wala fay nañ li nga war a def rek la ñuy xool ak ni nga ko war a defee. Mhm. def nga ko heure bi nga ko war a def. Mhm. def nga ko ni nga ko war a def ni nga ko war a defee. Mhm. ñaar yooyu bu ci manqué. ñoom dañ la indil ay jafe-jafe. te ñoom bu la indilee ay jafe-jafe ci am possibilité. te yow amuloo sanction pour amuloo doole pour mën a sanctionner ñi nga xamante ne. ñoo la war a teg ñoo la teg coono boobu. parce que topp seen ginnaaw di daw rek nga mën mënuloo taxaw ne état bi tey na ngeen ma fay wala ma teg leen ay sanction te ñoom bu ñu ñëwee fekk la ngay liggéey bu baaxul. li nga liggéey yëpp dañ koy toj nga lañ baaxul nii lañ ko bëggee bon tardé nga dañ lay appliquer pénalité mhm. nga ne leen seen paiement dafa retard ñu la demal nga wax ko ñi la war a fay mhm. loolu aussi bu bu bu doxalul lu bëri de du lu yomb mhm. fekk rek ne ah, mbir boo ci naree continuer da ngay seet naka nga koy tàmmalee sa bopp pour man ci wéy loolu ci lañuy wéy jël suñ kër suñ ay kër di garanti banque mhm. banque di ñu lebal mhm. ñuy fay suñu ouvrier mhm. suñu ar suñu état faye banque jël seen wàll est-ce que nañ ci am dara wala lañ ci am du am solo mais nag loolu moo fi sës macha allah hmm. mu doon lu am solo ci leeral boobu noonu hmm. parce que tey jii tam yooyu occasion la boo xam ne tam du ma ni de cœur waaye tam su nit ñi mën a bàyyi xel bu baax a baax itam chef d'entreprise yi fi nekk rawatina ñiy liggéey ak état hmm. euh, parce que jàpp nañ ni kuy liggéey ak état rek ne sa bamba maase na am na am na ay yu ndaw yu ci biir am na yu bëri yoo xam ne mi ngi ci biir yoo xam ne ki ci nekk rek moo ko mën a xam waaye ko ko ki ci newul mënu ko xam dañu jàpp ne daal sëñ Moustapha mi ngi liggéey ak état rek affaire am baax na fekk na réellement am na am na uh, uh, jafe-jafe yu bëri yu ci nekk moom donc leeral bi tam dafay daal di doon lu am solo macha allah ñu ciy bu baax a baax bi nga bi nga ci indee ay leeral hmm. euh, ñu dugg tam ci beneen pàcc ndax euh, yemoo tam tey ci chef d'entreprise bi wax dëgg yàlla ndax tey ji doon nga tey benn coordonnateur ci biir Benno Bokk Yaakaar rawatina ci département bu Foundiougne bi nga bi nga xam ne foofu foofu nga ko doon tension politique bi ci réew mi par exemple déclaration bi nga xam ne son excellence def na ko ba ci dem bu wanjaay naka naka naka naka ngeen koy dundee fi mu toll bi ci rek mooy ma nuyu waa département Foundiougne mm-hmm. euh, di nuyu waay Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne ñoom nekk fa mm-hmm. mooy Ibrahima Debe mm-hmm. ak ñi nga xamante ne euh, mooy représentant Moustapha Niassi mm-hmm. ak Issa Ba nga xam ne moo représenté RP mm-hmm. ak euh, waaye affaire yi nga xamante ne ñoom laa bokkal nekk foofu te ñu jël seen kàddu dénk ma ko maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ndaw yi di nuyu toute maire yi nga xam moo xamante ne dëkk na ci mm-hmm. nekk na ci département Foundiougne muy 17 communes ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp bon euh, déclaration président de la république ñun dañ ci am ferte parce que damay wax ne man màkk laa jógee bi may dem bi ma eggee Medina Medinatul Munawwara li ma njëkk ñaan mooy yal na yàlla wàcce jàmm ci réew ndax awoon tu jàmm mm-hmm. bi may ñibbisi bi ma ñëwee ba aéroport bu Jidda hmm. laa dégg président Macky Sall def déclaration ne retiré na candidature d'une part métti na ma parce que hmm. bokkoon naa ci ñi a def meeting ne mooy suñu candidat hmm. waaye d' part kontaan naa ci parce que xam naa ne lu dul jàmm jàmm ko jàmm ko ko tax a def loolu ñu sant ko ci bu baax waaye ñu remercier adduna bi yëpp mhm. bi nga xamante ne tey ñëw nañ di di di féliciter suñu suñu suñu leader président Macky Sall mhm. euh, ñu am ci ferte pour que euh, bëgg jàmm moo ko tax a def mais aussi defin wi ak heure bi mu ko defee mhm. moo ñu gën a mayati ndam ci jëfu ji mu def ndax dafa waxoon am ñu taxaw ne li mu wax dana ci génn mm-hmm. loolu bu ci génnoon tey mm-hmm. dañ ko traité non bu nga xamante ne ñun ñi ànd ak moom buñ ko déggee duñu neex waaye mu mbës xolom mm-hmm. jàpp ci li mu jàppoon bañ ko commencé wax ba bis bi muy def déclaration mosul sensé ca la mu waxoon dara kon tey mm-hmm. gëm nañ na la moxoon mm-hmm. def na ko mm-hmm. loolu nag honneur la bu bu bu am solo ci moom waaye honneur la bu am solo ci njabootam protesté nañu tey ndax bu defoon leneen ñu ngi ci mbedd yi di xuloo ko xeex parce que ku ko wax dara danañ jàkkaarloog yow te bu boobaa na def lu nga xamante ne xëy na nit ñi dañu am fu fuñ ko wax c'est vrai que yoon mayoon na ko ko mais ah, jikkoom mm-hmm. ak sàmm kàddu mm-hmm. moo tax mu bëgg askan wi nekk ci jàmm moo tax mu def li mu def mm-hmm. loolu ñun man lu sant ko ci beneen bi ci des mooy gis nañ président de la république yi fi jóge yëpp hmm. trois président fi jaar ñaar ñi kenn ku ci nekk dañ la gañe nga dem te amul ci kenn kum neexoon boo fi génn génn fi ak ñu gañe la Mm-hmm. loolu yàlla musal na ko ci tey. Mm-hmm. dana génn Sénégal ak honneur am kenn gañewu ko. Mm-hmm. jaar ci grand porte pour génn loolu tamit ndamu APR la euh, suñu ndam la beneen bi ci des mooy ñu félicité ko. parce que créer parti yomb na mais fexe ba dem sa parti dem candidature président de la république du lu yomb. waaye fexe ba créer parti dem candidat président de la république nekk président de la république mhm. gagné ñaari yoon sa mandat mhm. loolu nag wax dëgg yàlla ku doyul dara doyul mhm. président de la république gàcce nga xanaa li ma ciy complété rek te xam naa ne foofu nga jëm mooy suñu position ñun ñi ànd ak ñun réellement waruñ ci am problème parce que président Macky Sall nekkul suñu sëriñ mhm. suñu leader moo jiite suñu parti mhm. eh, su fekkoon ne tey daf ne génn na parti bi mhm. su boobaa problème war na mën a am mais nekkul candidat la wax nekkul candidat tekkiwul ne moom dafa bàyyi parti bi comme nag ñi àndoon ak moom ci parti bi suñu goree mm-hmm. nañ continuer seen confiance teg ko ci wetam mm-hmm. fu ñu joxoñ ne foofu la mm-hmm. ñu dem ànd ak moom en tout cas département fu ñu ñu ñun ñu ngi toog di xaar président Macky Sall képp kum ne ku mu joxoñ ñun pare nañ pour ànd ak moom parce que ànd ñoo moom président Macky Sall lañu ànd voilà incha allah dégg naa tamit pour que ñuy wax naan toog ba sept mois des ci <laughs> doog am candidat candidat bi est-ce que dina mën a wër Sénégal loolu du wax bu am solo ndax candidat wu APR fekk na APR wër Sénégal bu farare président Macky Sall candidat bi muy samp tey loolu moo def moom defal na ko wëral na ko Sénégal gox bu ne am na ku mu fa teg kam fa teg bu ko déggalee soxlawul kii ñëw di wër adduna bi yëpp bon moom wëram dootu am njëriñ voilà. Euh, mu mel ni mu mel ni daanaka leeral nga leeral nga leeral nga li ëppoon solo ci ci ci ci ci ci ci li nga xam ne loolu lañ doon bëgg laaj yëpp boole nga ko fat ko tënk ko hmm. xanaa rek fi nga fi nga fi nga mujjee rek foofu hmm. laay daal di rebondir ak tuuti parce que hmm. tey ji loolu dafa bëgg ci ci ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ko bokk di ko laaj naan tey ji mooy kan la président Macky Sall war a tànn pour mu jiite Benno Bokk Yaakaar pour prochaine élection yi kon ku nekk ngi joxañ na hmm. mais tey jii yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci biir APR par exemple hmm. kan ngeen xalaat ni wala da ngeen toog rek di déglu président Macky ki ci gën waaw xam nga li may faral di wax rek paaka hmm. kenn war ko jiitu ci mbar lu leer parce que boo ko ci jiitoo bu la fa fekkee mun na am du gën ci yow moom kay tubarkàlla moo tax na suñu xam-xam waxuñ ne euh, amuñ xalaat amuñ soi parce que loo nekk vingt ans war nga ci am xam-xam war nga ci am xalaat. mais suñu xalaat ak suñu xam-xam yëpp tënk nañ ko. Mm-hmm. teg ko ci gannaaw président Macky Sall. Mm-hmm. fu mu joxoñ foofu la. Mm-hmm. ko naan fii ngay jaar wala fële parce que bu fekkente ne xam APR la moom mi ko créé kenn gënu ko koo def su fekkente ne xam cadre yi fi nekk la. moom mi nga xamante moo jiite cadre yi jiite mm, mouvement bi jiite benn bokk yaakaar moo gën a xam ñëpp candidat bi gën tiim li nga xam ne daal moom du lu mën a ñàkk mhm. lu ñëw neex ñëpp moom kenn mënu mhm. waaw mais bu xoolee fi majorité ci jublu mhm. mu jublu fa yaakaar naa ne du am benn problème te jikko ji ma xam ci président Macky Sall oh, te xam naa ne moom lay continuer du taaxee na day ñëw imposé ni dana def soit pour présenter ko nit bu ci nit ñi d'accord dañ àndal te ba ñu àndeek moom ba bisu tey masul mm-hmm. am benn choix bu nga xamante ne def na ko mm-hmm. li ëpp ci mbooloom mi d'accord mm-hmm. te li ëpp ci mbooloo mi bu ñu d'accordee mooy li mu choisir moom la ñu def man daal foofu laa ko tënk. mu doon lu am solo xam naa ne waxtu bi mi ngi xëcc jeex wax dëgg yàlla waaye duñu duñu waxtaan ba jeexal te wax dëgg yàlla dugg ñu itam ci suñu dëkk bu tedd bi ndax kenn ku ne xam na ni wax dëgg yàlla bés bu mag bi mi ngi ñu ngi ñu ngi ci wàccaay wi muy 18 safar wax dëgg yàlla. tey jii ñu nekk toogandoo ki nga xamante ni moom mooy directeur général bu entreprise Touba daarul Minam kon wax ba jeexal te du tudduñ ci loolu tamit dëgg yàlla defe naa ne du du yell hmm. waaye tey jii bu doon laaj lan la lan la lan la directeur général ak entreprise Touba Darou Minam hmm. di waajalee li nga xamante ni mooy 18 safar gi lan nga ñu ci mën a indil ñu siyaare nuyu bu baax a baax suñu xalifatul xam hmm. Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaanal ko moom itam bu baax a baax suñu borom bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam a kanam mu jërëjëf sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal mhm. suñu borom dolli ko fi yàggal sëriñ Muntaxa mhm. suñu sëriñ la mhm. suñu waajur parce que suñu waajur wu góor taalibeem la woon xaritam la woon tuddee na ko suma ñaari rekk yi nga xamante ne ñoom ñëpp sëñ Muntaxa la leen tuddee man mu tuddee ma sëñ Moustapha Bassirou Oh, xalif teef gi nekk tey Daaru Minam mm-hmm. entreprise bi tudd Daaru Minam mm-hmm. kon jàpp naa ne ñun fu màggal passé mm-hmm. commencé nañ waajal màggalu déwén yaakaar naa ne ouvrier yi nga xamante ne ñoo war a dem commencé eh, suma kër pour préparer màggal gi samedi bii la ñuy dem incha donc ñun ñu ngi Touba ak fii suma kër a nga Touba mm-hmm. suma lépp a nga Touba mm-hmm. tey jii sax ko yàlla dogalee mm-hmm. bu ma noppee ci lii may def dinaa fa dem pour préparer suru xasaay yi nga xamante ne moom la sëriñ bi wax na pour ko loolu nag euh, dinaa la sant bi nga ci suma mbokku taalibe ñu egg fa waaye néew na sax ku may interview ñu dugg ci suma affaire domaine taalibe parce que loolu daanaka boolewu ma ko ci samay. dëgg nit a ko ma mais tey nag comme dama daje sama mbokk taal bi. ndeysaan wax ma ci dinaa ko sa ndongo rek sa ndongo rek <laughs> macha allah. jërëjëf sëñ Moussa wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo wax dëgg yàlla te te te te wax dëgg yàlla tënk nga ci lu bëree bëri loo xam ne fi mu ne li li wolof di wax naan xëy na eh, li duuf ci nag bi xajul ci cin li waaye ñu tànn xanaa la ca gën a kii rek def ko ci biir ci li hmm. waaye réalisation yi nga xamante ni maanaam ci côté département bi. boobu itam xanaa nga mosal ñu ci tuuti rek. ñu daal di koy yëkkatee jotaay bi incha allahu rabbi. waaw xam nga réalisation euh, département Foundiougne. Mhm. buñ ci wax. Mhm. ndem gore nañ. Mhm. bu ñu xool ñun li ñuy nañ xool li président Macky Sall def parce que président Macky Sall. def na fu ñoo xamante ne. ñun mas ñu woon xalaat ne suñu réew dina fa egg. yaakaar naa ne. bi ma nekkee président conseil départemental mu ñëw fa mm. la ma ko njëkk a wax mooy commune bi nga xamante ne man maa nekkoon maire ba avant may nekk président conseil départemental mm. mooy commune Diagane Barka robinet du fa ubbeeku mm-hmm. ma ne ko monsieur le président man su ma àndee suma doom ñëw weekend fii mm-hmm. bu timis jotee ñu ne ma papa bi dafa coupé mm-hmm. nañ ñibbi commune Diagane boobu amul benn village bu nga xamante ne da fa dem soxla ndox robinet way dëkk ya fa nekk village yi mën naa wax ne soixante ba soixante dix pour cent bu village boo ci tam tey am na ko Foundiougne ci boppam mu defal ñu poor bu nga xamante ne c'est des milliards de milliards la fa def adduna bi yëpp gis ko mu ñëw inauguré ko ne mhm. naa leen defal pont mhm. ñu ah président day wax rek mais pont Foundiougne moom mm, ba àdduna soso ba léegi président bu fi jaar wax na ko waaye <laughs> tey pont ba suñu départ fii trois heures de matin mhm. du ñu mhm. jaar Kaolack Fatick la ñu jaar jéggi suñ pont dem mu def ci ay milliards yu bare bare euh, boo demee diggante Kër Waal Ndiaye ak Karang mhm. président Macky bi muy ñëw boobu kenn mën foon jaar bi ñëwee pose fa première pierre inauguré na yoon bi macha allah soo demee ci biir département bi mhm. diggan diggan diggante village dëkk bu nekk mhm. la ca ëpp mhm. def na ci ay piste piste ya fa nekkoon mu defaraat leen forage yi mu def ko kon ñun tey am na lu ñu def ci département Foundiougne xëy na bu ñu boo interrogé kenn ku dëkk ci biir département hmm. laaj ko conseil départemental hmm. lan la fi Moustapha Mbaye def hmm. dana la ko mais man mënuma toog fii di lim li ma def li ma mën a lim daal mooy président Macky Sall la fa war a def def na ko taxawaay bi nga xamante ne war nañ ko def ñun tamit pare nañ ko taxaw ci ginnaaw voilà. macha allah. mu doon lu am solo loo xamante ni tënk na ko fa mm. ndax lii moom da moo déggee kàddu gi day mel ni fi mu toll nii wax dëgg yàlla euh, taxawaayu njiit lu ma sëkk la ndax mooy li nga wax nee nga amoo loo fa def waaye li fa mm. président Macky Sall war a def mm. def na ko fa tey jii sa diggante sa relation yow ak moom opposition beeg wala wala yeneen i parti politiciens yi tey jii naka nga koy dundee ak suma relation euh, opposition bi mm-hmm. au niveau de département fu ñu amul benn problème parce que département fu ñu position bi lu néew la fa am mhm. benn commune la fa am mhm. te ña ko jiite mhm. affaire lañ joge mere leen fi génnee ñu dem jiite ko xëy na bu ñu mertoon ñu yoon affaire ñu ñeen fa nekkal it amuñu vraiment amuñu ñoom benn problème jàmm ak salaam lañu seq ak ñoom xanaa kay fu ñu jàkkaarloo ñu dóor leen karawaas te loolu la ñaan yàlla à tout moment pour di ko def euh, à part loolu man bu ma ñëwee Dakar du ma tal nekk fii di werante parce que su ma liggéey ma toog di ma xaar. Mm-hmm. bu ma ñëwee damay liggéey suma ma liggéey mm-hmm. su may politique ma dem département Foundiougne mm-hmm. def fa suma politique. te foofu daal amuñ fa benn problème ak ñi nga xamante ne bokk ñoom ñoom ci gis-gis ci wàllu politique. parce que loolu mënul ñàkk. waaw parce que opposant oh, lu baax ci réew la. surtout lu baax ci quartier la. lu baax ci département la. loolu wàññiwul dara. lu tax sëñ Moustapha mel ni ku nëbbatu fi mu toll nii toog ci roxam rek jàpp njàmburam te pourtant mi ngi liggéey liggéeyam. waaw nëbbatu bi de xanaa du lu am solo parce que man même bu ma nëbbutoo. Mhm. président Macky Sall feeñal na ma parce que parti boo ci bokkee. Mhm. Euh, élection ñëw nga nekk candidat deux fois nekk mhm. candidat maire nekk candidat président conseil départemental yàlla def nga gañe ñaar yëpp 2014 dama nekkoon ñaari candidat gañe woon ñaari yëpp dénkaane commune bi mhm. ma nekk candidat wu bi nekk candidat commune bi mhm. gañe ko mhm. te candidat yooyu yëpp président Macky Sall moo may tànn comme candidat am ma dem nekk kon euh, laaxutu amut ci bi nga xamante ne egg nañ ci ndomboy tànk yi man bu ñu soxlaa soxlaa département ci département bi mhm. suñu ñëwee dama naan ku soxla na yëkkati loxo mhm. ndax man jombale naa suñu bopp mhm. ànd ak nit ñu jiital ma ñu indi ndoom ak tànk ma tàllal suma baaraam ne nañ ma jiital député ñëw na fa nekkuma candidat au conseil ñëw na fa nekkuma candidat député ñëwaat na fa nekkuma candidat on conseiller ñëw na fa nekkuma candidat conseil économique ñëw na fa nekkuma candidat président nag bi mu demee ba gisal boppam loolu la jël ci mbaaxam nommé ma au conseil bi ma nommé au conseil yemut ca boole na ma ci dix personnes yi nga xamante ne ñoo jiite au conseil bi ma nekk président commission bu mag donc kon euh, li ma war a représenté ci parti bi maa ngi ko ciy représenté mais cere bi ñu ma war a jox aussi jox nañ ma ko te maa ngi koy doxal comme ni mu waree. jërëjëf sëñ Moustapha xanaa buñ la laajee tey ji lan mooy doon message bi nga xamante ne tey ji war nga ko yónnee askanu Sénégal plus particulièrement waaye euh, département de Foundiougne ba nga xamante ni wax dëgg yàlla ndooma tànk yi foofu la ëppee buñ la doon laaj message bi tey la lay doon ñu boole ko kaddu yi niru kaddu yu mujj te doonul kaddu yu mujj ndax nee la dinaa la topp si incha allahu rabi gannaaw yaa ngi ñu ngi waajal safar bi hmm. moom bu soobee yàlla nañu gars yi séentuwaat te xam moom danañ ñëw ba daar daaru min naan moom seet si la euh, jël si tamit ya nga xam ne ma ngi fay xew ñu xam ni suñ Moustapha yemul ci lii ngi ci hmm. lii waaye ma nga ca la muy dund religieusement hmm. spirituellement ci boppam akum njabootam macha allahu rabi waaw li la ciy wax rek fi may fi nga taalibe laa te moom taalibe gi moom mu gën a yitteel politique. dëgg la bon message bi nga xam ne moom lay lancé Sénégalais yëpp. Mhm. dama ciy jiital ndaw yi. Mhm. ñu xippi seen bët xool xam ne Sénégal. Mhm. lu fi baax ñoom ñoo ko moom. ñun ñi li sonn nii yëpp. pour suñuy ndaw a tax. parce que ku ci naxut sa bopp. ku am soixante ans wala soixante cinq ans. war nga xam ne di seetoo lu bari. alors léegi nag bu fekkente ne li ñu réalisé mhm. ñoom ñooy ñëw di ko yàqal seen bopp mhm. buñ jàpp ne ma sàmba lañ ko def buñ jàpp ne ma demba lañ ko def seen bopp lañ ko def dama ne mhm. kum ci neex si xale yi mën nga seet ku la neex nga faral ko waaye nag nañ yàq yëfu réew mi ku la ko sant lànkal parce que li ngay yàq ki nga bëgg mu toog fa bis bu fa toogee wala mu liggéey la day nekk di réparer li nga yàqoon temps ba muy réparé bu ko doon liggéey fekk na réew mu avancé loolu ñoom war nañ ko xalaat mm-hmm. beneen bi ci des desit mooy képp ku nga xamante ne mm-hmm. jàpp nga ne war nga koo mën a dimbale pour mu yore réew mi mm-hmm. da ngay dem fexe nga defar sa carte convaincre say morom ñu ut seeni kart su ëllëgee ngeen jàppale ko pour mu kay loolu moom lay dénk ndaw di leen wax ne bu leen kenn dugal ci histoire mhm. parce que histoire boo ci duggee da nga ci lor ñu nga xamante ne bokkuñ ci am na ñu nga xam ne tey seen yoon nekku ci politique mhm. lakk nañ seen i kër mhm. taal nañ seen i oto yàq nañ seen i alal alors léegi nag loolu nga yàq da nga yaakaar ne sa digg sa borom doo ci am boo lëggee danga ko da da nga ci am contentieux sa digg sa borom te loolu aussi lu ci lu ci mat a bàyyi xel loolu daal maa ngi dénk xale yi pour li may dénk département Foundiougne nag mm-hmm. nañ takkutoo mm-hmm. di ko dénk benn Bokk Yaakaar yëpp mm-hmm. bis bu Macky sàll joxoñee baaraam ñu dawee ko xam nga fan lañ jëm opposition kenn mënuñoo tere dem opposition su joxalee baaraam na ñu topp fi mu jaar nam lim amoon dana ko amaat teg fi nit ñu continuer suñu liggéey bi ñu nekkoon pour dem te président Macky Sall liggéey na ci réew mi liggéey bu nga xamante ne du tànn kenn ku nga xamante ne mhm. day yàq liggéeyam képp ku fi indi def koy wóor ne kii mhm. dana mën a continuer ay mébétam waaye képp ku mu fi indi dana wóor dana ko dana ko wóor ne mhm. kii mu fi indi heure bu eggalee ay mébétam dina amaat yeneen mébét yu nga xamante ne dana ko defar réew mi mu jëm ci kanam kuy delloo réew mi ginnaaw du jógee ci président Macky Sall kon su ko su ko suñu ko xamee noonu rek danañ yombal mbir mi ba képp ku président Macky euh, teg loxo mhm. ñu ñëpp ñu ànd dem ci ginnaaw loolu nag message la bu nga xamante ne mhm. man ak waaye Benno Bokk Yaakaar ñoo ko bokk mhm. te jàpp naa ne département fu ñun moom loolu laa fa bàyyi te loolu moo fa nekk mooy ñun ñu ngi toog jërëjëf sëriñ Moustapha Mbaye ci waxtaan bu neex bi waaye wax leeral gi xam ne itam leeral nga ko waaye soññe gu mujj nga xam ne itam soññe nga ko askanu Sénégal wërngal këpp plus particulièrement ndaw ñi sant la bu baax a baax gërëm la ñaanal la yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi sañ am mën tey def mu doole la sàmm doole lay guddal fan yi doole lay wéral cër yi yëggali mbooleem naal yeeg yéene yi nga xamante ne naa la ko askan wi waaye itam entreprise bi tam ñaan yàlla bu baax a baax suñu borom teg ci loxo te gën koo kaweel te ubbiwaat yeneen ak yeneen ak yeneen ndax wax dëgg yàlla mi ngi bokk ci liy xeex xëyu ndaw ñi wax dëgg yàlla macha allah bi sant itam bu baax a baax téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy suivre télé bi nga xam ne mooy Salam Vision euh, di leen ñaanal kenn ku ci nekk fa mu nekk lay bëggam ak mébétam ak yeneen suñu borom mi dul jeexal dara sañ lépp mën lépp lépp yal yàlla jàpp ndala lépp waaye itam sant bu baax a baax sama régisseur sama réalisateur soxna Diayna ba mi nga xamante ni ñu ngi ci ginnaaw moom itam fi mu ne di corriger lépp macha allah rabbi équipe technique bi bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw sant nañ ñëpp jox leen dig daje incha allah rabbi taala ci yeneen jotaayu xam-xam ak seen émission bi nga xamante ni mooy les coulisses politiques jaa ngeen jëf wasalaam